suñu borom julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom dellu di sant Xaadimu Rasuul ñu fas yéene jokk ci ku tedd ki li mu waxoon ba jëmm ji nga xam ne moo tax ñu daje fi tey ñuy màggal bisu gënam àdduna ak wax jur yi ja nga xam ne ku tedd ko waxal na ko ca ñu ngi ci jaar di ci barkeelu ñu ci ñaanal sëriñ Sidi Mbakke mi nga xam ne moo nekk bopp kër gi yàlla defal ko tawféex ñu ñaanal mboolam ñi ngi xam ne njabootu Cheikh Abdoul Ahad rawatina njabootu sëñ njabootu sëñ Tuubaa gépp rawatina njabootu sëñ Cheikh Abdoul Ahad Mbakke yàlla def tawféex ci daje gi ñu dajee ci kër doom ji di sëriñ Amsatu te sànq def ñu bokk yu bari ñuy liggéey bi ñu bokk ci yoonu lislaam te bu ñu lislaam sëriñ Tuubaa la boo ne sëriñ Tuubaa mooy lislaam yàlla defal na ci ndam ñu ci jiital mooy nawet bii nga xam ne sànq def na ci. ñu ñu tàmbale ci njëlbeen gi mu defal na ci tawféex ba lépp loo xam ni yaakaar nañ ko ci saabaram sotti na ko ci te bu ñu ko jotee it mu jëriñ ñu te lenn lu leer bañ sa nekk mel ni jotaay bi mel na ni moom lépp sotti na ndax boo dikkee kër Sëñ Abdou fekk fi Seex Saaliw Mbakke mel na ni lépp sotti na te njabootu Sëñ Saaliw gaa ngi nii tàmbale ko Sëñ Cheikh sëñ Ibrahima Mbakke moom sëñ Moustapha ànd ak mm, sëriñ Xalil Mbakke moom sëriñ Moustapha te ñoom ñaar ñëpp bokk ci kër bi ak seen ndakk Mame Mor mel na ni kon fi ndax moom Cheikh Sary moomu yal yàlla fayal na ko mm. ci xibaaru mag bi bokk na ci li nga xam ne ci ñi mujj bokk bokk la wàcc la bokk ci ñi wóoru sëñ tuwaay barkeem mu ne boo tuddee sëñ blaat tudd nga boo tuddee sëñ saw tudd nga sëñ blaat mu mel ne dañ ci def lu gàtt loo xam ne rek jamono ji moo ko moo taxoon moo di bokk na jamono yi tax ma di ko wax ma dégg naa daa togg kenn ci kilifa yi muy sëriñ Abdou Khadir man nag sëriñ Abdou ab jant day bu langaanee lee mu sox ab jant bu langaane lee mu sox kon ab jant laa kon nag jëf rekk moor ni ko daa fas yéene bu jant bi sooyit képp ku dikk da ngay sof waaye doo ku dikk da ngay sof ku sos nag sama yoon ni ko waaye ku dikk boo sosee da xam ni liggéey na daan ne ko nag daañu àgg jamono joo xam ni na ngeen yor melokaanu ëkk benn ki li tax mu wax ko mooy ngelaw daane na tabax lu tabax gudd gudd daane na ko jëmm doomu aadama ñuy wax ngelaw mën na koo daane lu maa doon luy jëm rek ngelaw mën na ko daane waaye ëkk na moom gisaguma fu ngelaw ko ngelaw ko lu bari bari bari bu dikkee da da suuf si day muuri ci kawam boo boo fàkkee ak ak ak ëkk kon nag dañ yor jokkee ëkk bu lenn mën a yóbbu jokkee ëkk nag mooy fam taxaw te loolu man ni ma ko jàngatee mooy. Serigne Touba li nga xëy moom lañ bàyyeel ku jaar ca loola doo juum te doo juumloo kenn te mel na ni jamono laaj na ko ndax nit ñi am nañ kilifa waaye nangootuñ kilifa. kon loolu Serigne Abdou Lahad waxtu wu nekk njàngaleem ay waxam njàngale la waxtu wu nekk ay waxam mën nga cee teg sa bët te mën nga caa jariñu kon bés bi du. dajalo lek aw ñam du tag du dara dañuy jël jukkom ja ak nam doon doxé ñu man ca jangaté ngir suñu jamono mëna bax kon euh, bis la bo xamni ci mboolem gaay yu bax yi warna na ñu am benn bis boo xam ne daañu taxaw seetlu ci ñoom ngir nawee seen jukko te jëmm ji nga xam ne mooy Cheikh Abdoul ci la bokk asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh